am na nag itam lenn lu nga xam ne masala bu feq la bu nga xam ne nit ñi wuute nañu ci naka ci affaire u ak affaire u sadl loolu itam ci mbooloo mi sax ñu ngi yónnee di laaj ku leen ci leeral bu baax a baax naka sunniyatoom moom xabd ak sax كونه من المذهب المالكي xabb yonent dund na ba dee mas ta julli yoori loxoom yonent bi indi diina ji Malik kii suñu élimaani ngeer dund na ba dee mas ta dund julli yoori loxoom lu mooy ba nga xamee ne jàngaro dal na ko mooy bañ ko dóoree ba nga xam ne ay loxoom dafa wow mënatu ko def xabb loolu rek moo indi fadlu bi mu def ci mujj ak dundam suñ ko laajaa mu ne ku nekk mën a wax ngantam waande fadlu mi ngi dale ci ibnu xaasim rek jëm ci tey waaye lu jiitu ibnu xaasim amul benn téere bu xam sadru mboolem si xaaw si tati téere boo jàng da nga ca fekk baabu wad'il yamini ala shimali muy buxaari muy muslim muy abu daawuda muy turmisi muy muy ibnu maaja ñoom ñëpp muy mu mu watta yi bi nga xam ne Maalik ko def sax yëpp da nga ca fekk baabul xabdi mooy baabu wadal yamini ala shimaali waaye doo gis baabu sadri ci benn téere addis kóore yi ko daa werante daanaa leen wax ne képp ku ma indil benn addis rek ci sadlu bu yeboo sax di daayif ma jox la mboolem li ma am ci téere te man lépp ci sama moomeel téere la ci sunu mbooloo mi